voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax ñu ngi si bu mu jokkoo gi ak euh, suñu papa euh, Imam Makhtar Gueye di kenn ci ñi nga xam ne ñooy seetu doxalinu Jamra ak tolluwaayam Imam Makhtar ñu ngi lay nuyu. waa ñu leen di bu baax di fay tamit di fay nuyoo équipe dina euh, seen buzz la rek. jërëjëf ak tamit seen mboolem auditeurs yi di leen a jàmm yàlla. may ñu koor gi ñu génn mu bindal ñu ci ay yu ak i yu bari te daxal ñu musiba ak bala amin amin yaa rabbi xanaa rek ngir xamal mbokk yi jotaay lañ bëggoon waaye li nga xamee ni moom la Sénégal di dund jamono ji moo waral jotaay bi mujjeegul mujjeewul jàppandi moom la ñu bëggoon waaye nag dañ koy faral rek incha allah jëmale laaj yi yaa mam yëg nga li nga xamee ni mooy xew-xew bi nga xamee ni xebatina sax la ñuy wax ci réew mi lu jëm ci ay ndaw Euh, mooy ay góor ki jigéen yoo xam ni tudd nañ leen ci loo xam ni xëy na xawul dëppoo ak aada wala ak éducation bi nga xamee ne moom la ñu xama woon Sénégal ana lan moo ci euh, jàngatu kuréel gi di Jamra waaw xam nga ñun yàlla dafa dogal bi ñu sosee Jamra ci mois de février mille neuf cent quatre-vingt-trois donc ak juróom-ñaar ren defe naa képp koo xam ne yàlla tax ngay wax rek mën nga seede ne que Jamra toujours day góorgóorlu di sàmmonteeg baat bu tedd boobu le sage Kocc ma di wax maanaam magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ndax boo xamee te waxoo def nga yëfu naa féq ndax kenn du ko jariñu waaw ñun lii nag waxoon nañ ko naa ñaar yooyu yi mujj ci la ñu malheureusement les faits jox ñu raison te gënaluñu ndax soirée privée amoon na fi ci Almadies mm-hmm. ba mujj gi bakken rot ci ci anam bu ñaaw ndax audition d'enquête yi dañu ne overdose de de cocaïne la maanaam xeetu sinébar yi gën a musibe ci àdduna ginnaaw héroïne euh, rawatina nag ña ko doon def ñu ngi leen tuddee ay ay fils de mm. wala fille de mm. masalan doomu borom barke lañu baat boobu daf fi war a jóg jaaduwul ñuy xaaj population bi ñii ay doomu borom barke la ñii ay doomu baadoole lañ du dëgg du yoon boo gisee Jamra yëkkati woon kàddu ne nañu bàyyi justice mu topp dossier bi jusqu'au bout parce que dañu bëggoon mu mu mën a servir d'exemple ndax ñu mën a xam ne yoon nekku fi di def ku ma am ndey ak ku ma amul ndey hmm. ak di làq doom di tóor dóor doom hmm. alors rawatina la ñu yàgg di dénoncer mooy mimétisme culturel bii jeunesse bi nekkee hmm. mooy mujj jur musiba bi ndax yow bu fekkee ka ngay roy ba di ko roy dàq hmm. la koy roy dem na ba musiba fekk ko si xanaa wax dëgg yàlla soxlawul ñu di la waar wala ñu di la xutba hmm. ndax li suma xarit Me El di wax rek ne lu ne fàng kenn du ko jeex overdose boobu faat ndaw si moo faat Jimi Hendrix à la fleur de l'âge le grand guitariste de de de pop music. Hmm. overdose moo faat Michael Jackson dëgg la du du euh, du cocaïne waaye propofol la waaye tamit ci xeetu cinéma yi rek la bokk. Prince overdose moo ko rey la grande diva de la pop music Whitney Houston overdose a ko rey xale bii dee ci benn soirée de fils de milliardaire et de fille de milliardaire overdose cocaïne moo ko rey. Hmm. waay waay ngir yàlla toppandoo bi ngeen di def comme que gis ngeen ne lay dal. da ngeen di toppandoo mu ngi commencé di leen dal waaw doo leen dellu ginnaaw yéen xale yi. Mhm, léegi léegi loolu lañu doon wax. Imam Makhtar léegi ngir. yàlla dogal nag. Mhm. mbir feeñ ci ndekete. cocaïne bi. kaka mhm. kaka ka leen ko jaay jàppale nañ. mbir feeñ ci ndekete c'était en plein couvre-feu. mbir feeñ ci ndekete li tax ñu am sañ-sañu. en plein couvre-feu di def loolu di violer loi bi ak di kokkali ñi. di tëju di njaaloo. di di wuqi cocaïne ndekete un policier moo leen ko yombalal ñu corrompre ko benn salaire vingt mille moom moo accompagne ndaw si ba ci bërëb boobu nga xam ne fa lañ doon loi bi ba pare di fa def naka suñu noonu loolu yàggul deux rek la waaw ñu njëkki mixa di Jamra yàgg di dénoncer dafa nekk au lieu de débauche de perversion et de détournement de mineurs kenn faale wu ñu mais malheureusement l'histoire nous donne raison moo tax maa ngi gërëm commissaire Florence Mendy de la brigade des mœurs jigéen la xale la mais jàmbaar la am na jom te elle est déterminée pour protéger la jeunesse sénégalaise def nañ fa descente dégg nga euh, ànd ak euh, waa waa waa waa brigade de cybercriminalité mm-hmm. intervenir fa daal di fa def un gros coup de panier mais malheureusement boo xoolee ñu interpellé am na ay ñoom 16 ans. seize ans et demi c'est l'occasion de dire que état bi na bàyyi di def la politique de l'autruche c'est-à-dire ñi jël collé euh, réceptif hôtelier yi ko jox ay xale mineur ñi dafa def naka sudul noonu ñooñu tamit na leen état bi woo déglu leen mm-hmm. ndax ko wóor na ko ne xale bi ñëwoon di def réservation mm-hmm. jarul mu di ko laaj carte sax waaye bu xoolee kanamu xale bi rek ko xool parce que ñun ñëpp a ko gis ci réseaux sociaux yi mm-hmm. di nga xam ne kii ay quinze ans ki la ñu am pour des raisons de profit financier ñu autorisé leen ko alors kon nag violé nañu loi bi parce que c' était en en en pleine loi de de de confinement mm-hmm. ñaareel ba tooñ nañu jullit yi ndax dañ ko def ci bis bu màgg bu day ni Aïd el mm-hmm. ñetteel ba jalgati nañ code pénal mm-hmm. parce que dañ ko doon filmer di ko jàllale dans les réseaux sociaux kon nag l'outrage public aux bonnes mœurs parce que réseaux sociaux yi c' est léegi mooy penc yu jëkkee suñu maam yi rek moom la ñu toxal léegi mu nekk lu électronique waaye c'est public kenn bàyyi kenn moomu ko ñëpp ko bokk. Hmm. kon c'est pas une soirée hmm. bu dee tëju nañu ñoom fa ñu tëju def seen lu bon njaalu ak iblis. Hmm. nga daal di def lu leen neex ak ay jarbaatu firaw na yoonu kenn new ci mais dès l'instant dañ ko téléchargé balancé ko dans les réseaux sociaux tooñ nañu ñëpp. moo tax nag l'article trois cent dix-huit et l'article trois cent vingt-quatre du code pénal en matière d'attentat à la pudeur. et matière du aux bonnes mœurs dafay entrer en action téye nañ leen nag la Jamra waxoon il y a deux mois hmm. pour euh, le scandale d'Almadies ba bakken rocca loolu la ñu waxaat na ko état bi topp ba mu jeex mais bu mu yem ci xale yi parce que xale yi c'est des victimes hmm. waaye na ci sóoraale les patrons des réceptifs hôteliers